aus billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baal aq leen baal aq di ñaan suñu borom boole ñu baal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 waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Eh, jërëjëf sëriñ Mamor kàddu yi am na solo comme noonu mu ko waxee rek sëriñ bi bëgg altine ji ñu jëm di ñaar fukki fan ci rakkaati gàmm jumaada lula di ñeenti fan ci weeru tubaab yi ñu nekk janvier eh, nañu ko baaxoo woon a defe suñu xëyee ñu salaat